Basa Basa. waaw. jërë ngeen jëf waa Wakaam ñoo bu baax baax ku nekk sa tur gis nañ seen teewaay. ànd ak seen mbër seen xarit seen doomu ndey muy imposé waaye di remercier bu baax a baax promoteur bu ko tëgg muy petit production parce que lii yombul tëgg ñaari mbër yoo xam ne ñaari xale ñaari espoir di imposer ak caat mu yëmbal waaye lay door rek daal di commencé lii di sama gars yi maa moom ñooy nekk sa zuy dëgg la aca imposer ñu ngi lay nuyu waaw maa lay fay di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama Serigne sëñ Babacar Mbacke ma këbaroom sant yàlla bu baax a baax a baax di sant waa Wakaam ak waa Ndar maa ngi sant bu baax a baax waaw di sant waa Casamance ak waa Ngaye Pape Demba ñu sant di nuyu sama yaay mère Sagar di nuyu waa Casamance waa Medina Souane waa Pakaaw Janaaba di nuyu waa Arabi waa Wakaam bàyyi ma kenn Wakaam gi yëpp bàyyi ma kenn mafia mafia dixième bi mafia dixième bi nuyu ñëpp waaw di sant waa Arabi bu baax a baax di sant waa Wakaam bu baax a baax waaw di sant waaw. aja dinañ ñëw imposé eh, nooy pare sa combat est-ce que gis nga fu mu toll sa adversaire muy Thiatou Yeumbeul loo koy wax. waaw Thiatou Yeumbeul moom da naan di sant waa Médina waa Médina waaw Thiatou Yeumbeul amoo leen lu ma koy wax ngeen di mbuus ku fa naw sa jaan wàcc na. ma ne ngeen di muus ngeen di muus sa jaan waaw di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam incha allah avant tout loolu la ñaan mais gannaaw ba ñun suñu gëm-gëm suñu gëm-gëm mi am bu taxawee dañ koy daan vite fait. lu muy indi ñoo ko moom. xam ngeen ne caat yëmbal bu ñu waxee bëre ne caat yëmbal bu ñu waxee xeex ne caat yëmbal est-ce que imposé fay na xeexal caat yëmbal wala bëre moom. si nga ne taxul néew jug mais xol. puus man Sigi Ndakaar taxul néew jug mais seddal na xol bu ñëwee lu indi fekk fi bu bëggee bëre ñu bëre bu bëggee xeex ñu xeex. est ce que di nga imposer si moom si kaw. ma maman n'a rien vu mon papa il est mort il est mort hier. loolu mooy lan lan. mooy lan maire bi gisagul dara. dama dama war a dem man fi ma fi ma jëm ragalu ma ko ñeme naa ko damay dem bu soobee yàlla daa bokk si yoon bi boo boo xëyee gis mbooloo mi yëpp open press am lii lan lañ mën a xaar si wàllu mobilisation le 20 incha waaw ñi moom ñi moom ñi moom wax dëgg yàlla nit ki nit ki xale da leen jox lu ñu moom mag ñi nga jox leen nga moom yàlla nga moom nga téye ñi ama amalu ma leen fay mu ama seen fay di di di ma topp nii guddeeg bëccëg te te man melu ma dara awma dara ñu may topp nii yàlla moo ñu boole barki Serigne Touba ñu ne ñëpp ay mbaam Baay Faal lañu ñii seen cent franc ak seen fukki dërëm ñoo may indi fii nii barki maam Seera Fall waaw ñi bàyyi gars yi di parce que gars yi waaw gars yi naa ko bokk ñi gaaw mu gërëm waaw waaw waaw ñu ngi nuyu Aziz Gueye bu baax a baax maire bi bëgg nañ mu jàpp si bu baax a baax mu jàpp si tege yi ñi ngay sant di ko gërëm Aziz Gueye maire di sant ñëpp waaw ak Mor Thiam ñu ngi sant bu baax a baax Seydou Kane ñu ngi koy sant borom Touba Akam ñu ngi koy bu baax a baax waaw ñu ngi koy woo si combat bi mu jàpp si bu baax a baax mu jàpp si tigee yeeg kaar yeeg lépp booy dem ak jàmm ñëw ak jàmm sama kañ ñu ngi sant moom dem ñu ngi koy woo si combat bi nañ ñëw nañ ñëw ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si combat bi waaw waaw bàcci li ñu ngi woo bàcci li ñu ngi woo si combat bu baax a baax mu daal di ñëw waaw ak seen Pape Demba jantal Mara ñu ngi woo borom ngaay waaw ah, waaw a Diouf Sène ak laay moo patron laay waaw comme may leen ko mu gërëm rek may leen ko mu gërëm rek après ngeen wax ak moom waaw waaw di mafia di nuyu Aram Diagne mafia Aram Diagne ñoom jaar ñoom Mam Laay ñoom Salou Socé bàyyi ma kenn ñoom Assane Kare ñoom ñëpp ak ñoom Pam Mbor ma kenn waaw di sant tuwaakaan bi yëpp ak waa Sida Avion bàyyi ma kenn di nuyu Ibou Dior baax a baax waaw ak Andi Mario ñu ngi koy bëgg bu baax Ibise Aliou Ndiaye ak Fallou waaw Aram Ndiaye ñu ngi koy baax a baax Aram Ndiaye yaa jaara ak Lamine Ndoye ñu ngi sant bu baax a baax jàpp nañu si a baax ak joxu jox ndékki chaque jour ñu ngi sant baax a baax ak waa boulangerie bi bàyyi ñu kenn Malick Ndoye ñu ngi sant di ko gërëm mafia star bi ñëpp dina woo rendez-vous la fin ak mère Sagar mère Sagar ñu ngi baax sama yaay baax a baax ak Baye ñu ngi koy bëggee